كريم زل منن على استغالي بفروض وسنن الحمد لله الكريم زل منن على استغالي بفروض وسنن سكرت لأنه قد ساخني لوطن به نفى ما خني Son Excellence Michael Raynor mi nga xam ni mooy ambassadeur bi teewal réewu États-Unis fii ci Sénégal ñëwoon na ci dëkk bu sell bii di Touba doon ko nemmeeku si bi mu agsee ki nga xam ne moom moo di sëriñ Mamour Mbacke moom Cheikh Mouhamadul Mourtada moom moo ko dalal ànd ak moom visité bërëb yu bëree bëri ci dëkk bi nga xam ne moom moo di Touba bokk na ci barab yooyu le grande mosquée bu Touba di jumaa ju mag ji bi mu agsee ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa daayira mu xaddamatul xidma ñi nga xam ne ñoo yor lépp lu jëm ci jumaay Tuubaa ji ñoom ñoo ko dalal ànd ak moom visiter mboolem barab yi nga xam ne ñoo nekkee ci biir jumaa ji fenn fu ci ne ñu leeral ko ko wan ko ko ba mu xam bu baax a baax bërëb bi nga xam ni bërëbu jaamukaayu yàlla la te ñu taxawal ko fi ci ndigalul Cheikhul Khadim. Vous avez assuré son influence continue, n'est-ce vraiment ça. euh, qui va changer la vie et changer le monde. Euh, et si tout le monde euh, peut, peut suivre les préceptes de, de, de Cheikh Ahmadou Bamba, ça va résoudre tous les problèmes du monde, euh, tout simplement. Donc, euh, et c'est vraiment une histoire, un héritage que nous, nous, nous, devons partager. Donc, merci infiniment pour la présentation, pour le livre et pour tout ce que vous faites. ginnaaw bi mu bàyyeekoo ci jumaay Tuubaa ju mag ji moom son excellence Michael Raynor dem na it ci bibliothèque Xaadimu Rasul ñu naan ko Daaray Kaamil bi mu agsee ki nga xam ne moom moo di Serigne Moustapha Diatara mi nga xam ne moom moo yor bërëb bi ak yeneen kilifa yi nga xam ne ñoo àndoon nag ambassadeur bi ñu visiter bibliothèque bi ñu wan ko mboolem mbind yi nga xam ne moom moo nekk ci kàggu gu mag gile mu nekk lool yéem na lool ambassadeur bi. قد سرت لما لم أجد سرواك فجدت لليوم بخير منني ginnaaw bi mu bàyyi ko ci daari kaamil moom son excellence Michael Raynor dem na ci cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou di xalifa général des Mourides ànd ak Serigne Mamor Mbacké moom cheikh Mouhamadul Mourtada bi ñu agsee ci Serigne bi ginnaaw bu mu ko ziyaare saafoonte ak moom Serigne bi dalal ko jot nañ koy yëkkati ci jotaay bi. dem mooy ambassadeur bu bees bi bari loo xam ne dañ ko def ci yoon wi sëñ Touba te réew mu mag moo xam ne moo mën nañoo wax ne moo ëpp doole ci àdduna yi ci kaw waaye ñun liñ leen nawee du du loolu Cheikh Mourou Bamba dafa am ñoom dañ nit ñoo xam ne bu ñu xool nit ak colom walla meloom wala alalam dañuy jàngat nit ci biir ba gis lu tax ñu mën ko téye <laughs> loolu moo tax sëñ Tuubaa it liñ def tubaab yi ñu gënoon a jaaxasoo sax defuñu ko ci ñoom mat na fanweeri at ak ñett indil ma këyit boobu proclamation bi sëñ Murtala def photo bi ak sëñ Moutala moom lañ ko njëkk a def fanweeri at ak euh, ñeent la jërën ñu wone ne bés bi 28 juillet rek leen nañ ko suñ Tuubaa at bu jëm boobaag léegi fanweeri at la ak 88 la woon yii mooy proclamation yi nga xam ne at bu jot gouvernement bi dañu koy taxaw def discours war ñu bis bi ko jagleel waaw waaw at bu jot waaw at bu jot def nañ ko fanweeri at ak ñeent ci at bi def nañ ko Washington def ko loo Angeles te loo Angeles Californie te du moo ëpp France kon état bu buñ jëleen bis bu mel noonu jagleel ko Cheikh Ahmadou Bamba kon def nañ loo xam ne lay tax ñu def ko du loo xam ne dañ ko làmbatu waaw moo tax nag ñu euh, ñëw di ku beer am na bu yàggul la mu ne day ñëw teraanga ji sax nag waxoon naa ñu sax leen ko seen bopp ndax xam naa sa waajee ba fa newoon xar yi misi ko <laughs> jeexul am na luñ ci bëgg a yóbbaale sax <laughs> waaw noonu loolu moo tax mu ñëw ko tey boobaak léegi génnagul woon mm-hmm. mu ñëw tey may itam loolu moom laa ànd ak ñoom waaw mosuñu faa dem di laaj wala ñuy wax ak ñoom lu jëm ci lu doyee dini mm-hmm. <laughs> dara oh, oh, oh. waaw ñoom it nag noonu la ñuy nit waaw duñu duñu koo xam ne daal da nga ñëw sol sa col rek <laughs> ne ne sa waajee rek <laughs> dañ lay dañ jàngat bu baax seen xale vous pouvez le perdre directement avec waaw moom itam moo tax ñu ñëw ci wax naa ko it ne ko bésu tey bi doo recevoir waaye dañ ko ko jagleel te xam nga ne seen jot ak bari mënees na ku leen ko muñal ndax du du moom itam noonu nii la mel nit ku modeste ku ku woyof la waaw te li mu yanu bari na li mu représenté yi du lu tuuti waaw dafay dégg su fekkee ne da nga am loo yaru nag ci diine beneen niveau ngay doon boo xam ne doo du du nañ lay gisee ci modiste yi mm-hmm. du bokk ak la nga xam mooy li nga am loolu moo tax <laughs> ñu ñu indil ko ko xam nañ li mu def bu baax a jóg xam nañ ko bu baax a baax loolu nag euh, amul beneen itti bu dul boobu mu sëriñ sëñ Tuubaa li nga xam Serigne Touba moo ko tax a jóg loolu nag kon ji amee cant bu rëy loolu dafay daal nekk wala suñu eh, ngi ciy sant bu baax mi ci ci ci ci ci taxawaay bi ci lépp. waaw su mag it bi nga xam ne def na ko ci bëggeel bi moom ndax taxawaay bi ba ba ba waajur bu waajur taxawaay su waajur bu baax la foo baax moom suñu bu baax taxawaay boobu rek la taxaw. dëgg la xam nañ moom xam nañ xam nañ États-Unis eh, amoon am na il faut que ñu boole monde bi il faut que kenn ku am na loo jàpp ci États-Unis ko loolu ñoo ngi am gën a am yaakaar bu baax suñu suñu diggante yow nag suñu suñu membre bi nga xam ne moom euh, xam na xam na taxawaayam te won na ko gis na la. kon sant bi tànk yi ndox ba ñëw fii. daanaka eh, ne ko incha allah fii moom li li mu bëgg ci li mu bëgg rek ci lu baax ci monde bi ci taxawaayu monde bi ci jëf baax da ko lépp moom fi sëñ tu sëñ tu wàllu rek fi indi woon eh, dimbali nit ñi rek ci biir ak ci bitti loolu rek moom fi kon bu baax a baax. ñu ñu ngi koy jë ñu ngi koy sant bu baax. C'est très généreux. Euh, quand j'ai reçu votre invitation de vous rendre visite, j'étais extrêmement honoré et je vous remercie au fond du cœur. you want jaajëfal mu ngi lay mu xamee ne dafa naroon ñëw fii moom mbégte bu bari la am ci si xol mu ngi lay jaajëfal. L'ambassade des États-Unis a entretenu depuis longtemps de, de très bonnes relations avec euh, la confrérie mouride euh, et avec la diaspora. Euh, que nous avons l'honneur d'arbitrer euh, aux États-Unis. Et merci beaucoup pour le rôle-clé que vous plaît, euh, Serena, pour garder le contact entre nos deux pays comme ça. et je suis vraiment honoré d'avoir l'opportunité d'approfondir nos relations dans les jours et, semaines j'espère les avenirs à venir. ak sëriñ Mamour ci boppam moom mbégte la ñëw fii ak tamit relation bi mu am euh, le, le Sénégal est pour les États-Unis un partenaire stratégique clé. Euh, et la base de ce partenariat, c'est le partage de valeurs communes. Et ces valeurs sont vraiment les valeurs de, la confrérie mouride. Euh, et je me sens chez moi au Sénégal parce que je, comprends euh, la sincérité euh, du peuple sénégalais et de, la confrérie et de vous-même, euh, Khalif, euh, à cet égard, les, les valeurs de, tolérance, de coexistence pacifique, de, travail acharné, de, participation. Eh, efficace et, responsable dans la vie sociale euh, d'un pays. C'est pour nous quelque chose d'énormément important et vraiment la, fondation de, de, notre partenariat bilatéral et les valeurs de vous-même et de, de votre confrérie. Sénégal ak états euh, kontaan chaque ndaxte lu ñu boole dafa bari lu wàllum euh, ay valeur lu wàllu tamit démocratie patrimoine liggéey bi loolu yëpp moom mbégte la ci moom donc loolu daf koy def si ñoo daal ñu continuer wàllu adduna dafa dëgg koog un peu plus tôt aujourd'hui, j'ai eu l'honneur d'être parmi les étudiants de l'université euh, Cheikh Amadou Bamba euh, et vraiment fortement impressionné par, euh, euh, comme toujours avec la, la jeunesse sénégalaise, leur, leur, leur, potentiel, leur volonté, leur esprit euh, et leur capacité de bâtir un, bon avenir pour eux-mêmes et pour leur pays et le rôle que, vous payez, le rôle que vous jouez. euh, à cet égard pour donner les opportunités éducationnelles, euh, pour les encourager. Euh, c'est ça qui va assurer le succès de, de, de étudiants, mais aussi du, du Sénégal. moom jàng ndaw yi daal moom loolu gis na bu ci kanamee jotoon na dem université gis na ay xale yu xarañ gis na tamit li euh, ngeen ngeen di dugal si jàng bi te gëm na ne ci jàng bi daal. xale yi daal mun nañ si am naataango donc loolu daf ci rafet lu baax. Ah, et juste encore fois merci pour tout ce que vous faites pour. Euh, votre conférée, eh, mais pour votre pays et eh, pour le partenariat entre le Sénégal et les États-Unis et le, le partenariat euh, euh entre mon ambassade et, euh, et la confrérie Mouride, euh, c'est quelque chose qui, qui apporte une valeur énorme pour, les États-Unis et je suis euh, disponible n'importe quand pour n'importe quoi euh, de soutenir ce partenariat dans les, jours à venir. ak ambassade bi ak Sénégal dafa bëgg mu continuer moom mi ngi soog a ñëw mais loolu moom moom def na ko ne moom moo liggéeyam continuer di ko gën a soxal nga xam ne euh, mbégte rek la ci am incha allah Donc, euh, vraiment, merci infiniment pour l'honneur que vous m'avez accordé et que vous avez accordé euh, mes collègues de l'ambassade des États-Unis euh, d'être avec vous aujourd'hui. Euh, et euh, je, suis vraiment touché au cœur et, énormément reconnaissant pour cet euh, honneur euh, extraordinaire. Merci beaucoup. ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay gërëm di rafetlu euh, li nga ko dalal ni ngeen ko dalalee moom gis na lépp gis na teraanga donc euh, ñu ngi lay ñu ngi gërëm ci ci biir xolam lu mu yëg fii moom tey moom kontaan rek donc ñu ngi lay ñu waaw waaw mi ngi wala tuwaaxisna bi kaasatin fudul fi zaahirin wa baatinin wa bil xusuul wa kun muizana min al wabaayi wa kulli naazilin min as-samaa'i wa kulli maa yaduuru fil ardi wa maa baynahuma yakuunu yaa rabbi as-samaa'i non, qui était vraiment euh, reçu, euh, reçu avec euh, beaucoup de joie. Euh, et nous avons eu beaucoup d'autres qui sont وزليا أزكى صلاة دافعة عنا وباء من جراد مانع عليه والآل بأفضل صلاة بصري ومسكني هديا سلام وسكن نفسي وزدني علما يكشف في الدارين عني هما وطير القلب وزني يا يا وعيني في طاعة يا ربي وجل يميني كصحاب في سخاء ميمونة في سدة وفي رخاء يا الله يا وهاب يا أعلى رفيق بيسلكن اليوم أنفع الطريق يا الله يا وهاب يا أعلى رفيق بيسلكن اليوم أنفع الطريق بحرمة المصفى المخلب والآل والسهب وسهر رجبي julli bi taqdimi wa tasdiqi bi hurmatil muqaddami siddiqi waliyajud bil haqqi wa tawfiqi bi hurmatil muwaffaqil faruqi waliya saadata daarayni bi haqqi ulmana akhin nurayni summa bi hurmati imaamina al-ali habliya fi daarayni siitani atali yaa rabbana yaa rabbana yaa rabbana yaa rabbana yaa rabbana aqbal nazmana